ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core te 4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne boole ci du ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien. Moussa Fall da ngaa am looy kii. non non non mën na ko. waaw nga ko sànq muy sëñ Mountakha euh, jóge nga ci Cheikh Sidi Mountakha seen diggante ndax sëñ Sa sëñ Cheikh Saliou. laajaguñ la ci ndax xel comme moom euh, leneen la waaye sëñ waa waaw mun Mountakha xam nga euh, dafa féete woon Diourbel. Mm-hmm. ku xam waa kër sëñ Basirou. Mm-hmm. xam niñ demee Diourbel. Mm-hmm. ñun suñu kër gi ñu am Diourbel borom Touba ci boppam moo ko rëdd jox sama maam du loo xam ne fu nu wutal suñu bopp la. moom tam muy waa Diourbel tombeek man sama bàyyi ci boppam jaareem la juddoo maanaam jurbel boobu daanaka sëñ bi it fa la bokk suñ ko daan wax sax dañ sa mbokk jurbel yaa ngi nuyu si hmm. maanaam ma gis ni selloon na selloo ndax xam nga ku jullee sëñ Murtala hmm. wëlbatiku hmm. sëñ Saaliu Mbàkke ne la ñu nit buñ fa tolloo rek nga def nii loolu dafa di sëñ bi man keroog bi mu ko déggee dama jooy kooku nit simple ñaari doomi sëñ Tuubaa yi fi mujj nga nga jullee leen mais kooku mënoo doon nit simple <laughs> mënoo doon nit simple <laughs> te sëñ Muntaxa ku gis ni muy doxee xam ne du nit simple <laughs> yow yaa may wax keroog bi may sëñ taxaa xaaru dara man am na loo xamante ne wax na ma ko fan yi rek ba sama yoon wi may mujj dem ñaan gi moom ma ko jox. waaw wax nga ma ko de. waaw ah. waaw. am na lu ma wax loo xam ne du ragal naa ko sax wax. Hmm. ci sama diggante ak sëñ Touba. Hmm. te loolu boroom sañ-sañ rek ko mën. Hmm. te moom bu dee àdduna am na ko. bu dee àllaaxira kooku bu demul kanay dem. mooy sax dëgg yàlla xamu ko de. sëñ bu rëccul kanay rëcc. wax nga ko. <laughs> bu dee sell sell na ah waxante dëgg gi. gis nga sëñ Touba. du ay caaxaan. du ay lu ñuy làmbatu de. gumbaak tëxëg leneen na ci yem. yëg-yëg la. du ku ne rek muy juddu nekk murit du ku ne mooy jébbal sa bopp sëñ Touba. du ko nuy liggéey Sëñ Tuubaa kooku sax rawatina jébbalu sax moo yombul bàyyi sa lépp jox ko sëñ bi loolu moo jafe rawatina nag nga may wax liggéeyal Sëñ Tuubaa mm-hmm. kooku moom mm-hmm. yëg-yëg yaa xam ndëgam sa ñaq nga ciy def mm-hmm. yéen a xam ni ngeen di yëngoo lu mel ni bis bi tey ngeen siiwal ku ne rek fa ngay yëngoo fa ngay liggéeyal ngay jàppale sëñ bi dëgg te nag Euh, wax dëgg yàlla ku xool dèjà seen tur yi rek rafet gi mu rafet xam ne yéen sëñ bi pare na leen alhamdulilah alhamdulilah du ko nekk mooy judd rek tudd noonu nit a ngi judd tudd nu ne waaw waaw <laughs> kenn gënu kenn nag waaw walay kenn gënu kenn mais mm-hmm. attention de mm-hmm. sëñ Touba du ku nekk rek ngay ngay xëy de dafa mel ni tey nga ne xalif général des mourides du ku nekk itam doon ko de. Mhm. parce que du charge bi moom garaaw. Mhm. sëñ bi daan na wax wax du xóot. ku mu neex fu la neex jébbalu waaye ki nangu moom mën a. wala wax loolu. te boobu bëgg xam bañ xam. waaw. Mhm. dafa jekk woon àdduna. dafa jekk woon àdduna.